3S Pro. waaw waaw doon wax de nee naa tey ngay gis lu bees dàq maa la wax lii gaa koy dóor bi tey ngay gis tuus bu bees tàq ndax bis bu bees nagu bees aw say dee waaye nagu ndaanaan lay doon kon nag Ndakaaru gaa ngi nii boo ko bañee ñàkk dégg da ko koy bañee mais bu dee ku dégg nga bëgg ko nga bëgg ko hop hop pop waxoon naa la ko day bàyyi wuñ ko benn yoon moom la xale yi topp lañ wax waaye tey la ñuy xam ba xam lépp dëgg la. oh sa waay muur nañ ko dara bu verte ndeysaan sama yaram daw na hop hop hop hop jëlal ma lii non lamba am lu ne xoolal lii kon ak faas gaa ngi um gone yi nee na moom la topp mais xoolal liñ ko defar tey Seydina tey du morceau bu weex tey morceau bu vert la waxoon naa ko xale riir na waaw waaw ay waay jégal ma lii lii rafet na waaw waaw borom Malika ngoog. jëlal loolu. oh déggal ma lii. jëlal ma lii. jawriñ Mor ak jawriñ Mor tey yaramam tàng na. door na ko nga oh, dara bu verte. suy sa sunguf. di ko door ay bitel. bii mooy dernier bitel bi xanaa. non yàq nañ fond vert. ndeysaan ay waay sama xel dem na si rapport. hop hop hop hop hop léegi fond vert lañ koy tourné. oh déggal loolu. man lii rek yàq nañ ko. na ngay déyante. oh. waaw oh, Yékini daana def lii di am lu muy saxlante. Oh, dafa demee. sama xel dem na si yëkku wa. Eh, eh, lamb lépp tegtal la. tey dañuy lamb de. lamb lépp tegtal la tey waa Fass lambante wul la. lamb lépp tegtal la. tey dañuy lamb. tey gars yi dañuy lamb. ay waay. waay bi yëlbu na le. waaw waaw waaw waaw. haa ay waaye jëlal loolu hop hop hop hop jëlal loolu ay waaye ay waaye waaw waaw ay waaye non xale baa ngay toroote nag xale baa ngi ñaap waaw dégg li gaay yi tuus loo xam jëne jëne xam sa kër ta xamoo jëne waaw waaw jàppin njaay njaay jinde waaw waaw njaay njaay jinde la lépp ay waaye waaw waaw ay waaye béré dal yàq nañ béré dal wala yaa ngi yàq béré waaye sëñ Mor yaa ngi yàq béré dal waaw Ngor a nga yàq mbiri dal ay waay oh oh toppale loolu yaram wa tàng na wa tàng na sa ko mbiri del ya ay waay booy yàq nañ mbiri del hop hop hop hop ay waay mbiri del ba ndeysaan waaw waaw waaw waaw waaw waaw ndeysaan ay waaye yaram daw may gërëm diaspora bi di leen nuyu di leen xamal ne Sénégal wàcc na tey arène nationale na ba zéro si diggante Ada Fass ak Zoss waaw waaw Ada ngi mi ngi yëngal Sénégal jibi ngoro ngoog ndeysaan jibi ngoro ngoog waaw jibi ngor ak jibi malika hop ay doomu ndayam taxaw nañ oh, waaw waaw ndaysaan oh jëlal loolu waaw waaw waxoon naa leen bay waxoon naa na doom ja waaye bañu ko oh jëy bilaay bu ma doon mbër boo tolloo fii say ra daw waaw waaw ah. ay waaye jëlal loolu ndaysaan ah waaw waaw ay waay ay haa ndaysaan ah daggal loolu rek loolo nooy na de waaw waaw gonay faas lañ lii ku ko oh ah. nee na nga ko waaw waaw oh ah. ada ngay wax ak turbine ba ah, waaw waaw eh, coach baa ngoog coach bi la amoon lool problème mais ñëwaat na si coach bi tey la xool ba xam waaw waaw aha ah. ay waay aha aha waaw waaw aha aha ay waay waaw waay bi teeli nañ ko mu bàkku waay aha Oh! waay waay lii neex na waay ay waay bilaay fii la mbër di yëgee boppam walaay ndeysaan fii mbër yàgg na fee toolu jooy ndeysaan ndax xalaat ya ndeysaan lu bees laa ngay waaj a ñëw de ma ngay xeeñ de ay waay nii lañ ko commencé woon de di riij kanaaw di riij di jëm laaj loxo ya ay waay jëla loolu ay waay ay waay ay ay waay ay waay ay waay ay waay jëla loolu ay waay jëla loolu ay waay jëla loolu ay waay jëla loolu ay waay jëlal loolu ay waay ah ah waaw waaw waaw waaw lu bees waaj a ñëw de gone yi lu bees la ñuy xaar hop hop hop hop dajji na lu bees dàq bu ne na ne looloo bees waaw waaw ma ngay waaje ah ah ndeysaan oh ndeysaan ay waaye jëlal loolu gugurat gugurat gugurat ay waaye jëlal loolu gararar gararar ah gararar gararar ah ay gararar gararar tagin ko góor ko góor góor ay waay ay waay góor ko góor ay waay góor ko góor góor ay waay góor lii xale bi dégg ay waay lii neex na de ay waay lii la xale yi toppee moo tax mbër da ngay waaw waaw sama xel dem na si Kalidou hop hop hop Kalidou lii lay bañ a dégg ay waay jëlal ay waay góor góor ay waay kon ak bente ñagaa nii neexut a dégg mais ne non booy bi daa jàpp bopp bi jàpp dëgg neexul ah presque tas ay waay jëlal loolu ay waay ah ah ah ah jëlal loolu ay waay ah jëlal gone yi waaw waaw waaw waaw looloo neex ay waay ah ah waaw waaw looloo neex kii mooy aada kii mooy aada faas ay waay ah eh, eh. Ah, ah. ah ah ah waaw waaw waaw mooy aada kii mooy aada faas na de waay ay ah ah ah ah waaw waaw oh